salaamaaleykum. maaleykum salaam. góor na euh, xam nañ ko gisee góor ñi nga xam ne dañuy jël seen yaram bi di ko rocc maanaam di ko xeesal. ñooñu duñu ay góor borom ñaari tur lañ góor dëgg du xeesal du tal sax yenn yi xam looy tal nooy dóoree waar gañe sa adduna dignement dundal sa su nekk am nga jabar nga dundal say njaboot bu nekk amoon njaboot nga dundal say parents ak say frères góor dëgg du xeesal. ba du waralu sax xalaat xeesal waru ko sax jënd ba kay xalaat def si yaramam. nan lañuy ñuy def ba war a mën a dindi loolu. ah ñu jéem a yaraat suñu bopp rek l'éducation rek yar suñu bopp xam lañu war xam suñu diine muy katolik bee jullit bi am na loo xam ne diine si boppam moo ko nanguwul diine toutes les religions révélées amul kenn ku ko si nangu. kon nañ seetaat suñu bopp yaraat suñu bopp xoolaat suñu bopp en commençant man mii di wax sax xool ku nekk na def xool boppam yar boppam àdduna bi jëm kanam. bon lu ma laa ci coalition bi euh, entre euh, APR AFP parti socialiste ak yeneen parti yu sew sewaan yi bokk ci euh, groupe Benno Bokk Yaakaar bi mais man je pense que c'est toujours d'actualité. parce que léegi ci àdduna bi ce sont les grands ensembles qui font la différence mais ils peuvent connaître seen coalition et si au sein de cette même coalition ñu génne ci candidat de Benno Bokk Yaakaar que ce soit du PS de l'AFP ou de l'APR waaye coalition boobu nag continuer la rek pour la stabilité même de ce pays ñu toog def seen coalition de seen grands ensembles xool seen biir xool le candidat le mieux placé bu xam ne am nañ yaakaar ne war na mën a demee élection gagné ñu pour porter ko ñu connaît seen kii coalition bi sinon individuellement ils n'auront rien parce que amul benn parti bu mën a dem individuellement gagné amul il faut des coalitions fortes et benn bokk yaa am na benn dynamisme mais les leaders dañ ko continuer continuer seen liggéey et puis seen biir ñu gis le le le le candidat de Benno Bokk Yaakaar comme candidat benn Bokk Yaakaar bi président Macky Sall en 2019 mais c'est pas question de PS ou PDS c'était le candidat Macky Sall c'était le candidat de de l'AFP et du Parti socialiste et des autres partis qui composent benn Bokk Yaakaar il faut nit yi xam loolu mais Macky Sall c'était pas le candidat de l'APR c'était le candidat de benn Bokk Yaakaar c'était le candidat de benn de c'était le de benn bokk yaakaar léegi nag élire nañ ko c'est son dernier mandat bu ñu demee deux mille vingt quatre incha allah si kattan yàlla mais ñu jëm a xool seen biir rek keneen ku si mun a génn mu porter la coalition ñu kon ne jeex na man de loolu laa gis merci.